jamono Abdoulaye Wade lu dégg lu jamono Abdoulaye Wade lu na dégg na waaye saaga waajur ak yu mel saaga non maa Moussa yooyu daawul am na fii nag ci ah, jamono ji moom am ah, na ah, léegi li koy jamono ji moom am na waaw xam nga ci Macky na xam nga lu koy indi waaw surtout ci réseaux sociaux yi waaw ci réseaux sociaux yi l'arrogance bu am ci ñi ànd ak Macky Sall c'est non euh, du ma wax mukk Macky la personnellement hmm. mais bu ngeen dégloo ci rajo yi wala télévision yi da ci dégg nit ñoo xam ne bu ñu toogee ci plateau yi li ñuy wax mënut indi lu dul ndax gis nga euh, violence bi yes moy violence langage bu fekkee ni ngay waxee dafa am violence nit ki bu lay répondre bis bu lay répondre ci violence la lay répondre il faut ñom ñu bayyi bu ñu nekkatee ci plateau yi di waxee xol ku def li ñu duma la dégg na ko ci sax force reste à la loi euh, reste à la loi mm. euh, force bu jaar ci yoon doit rester la à la loi mais force bu tegootul ci yoon injustice lay jur moy mm. li am moy force bo xamne dafay ben ben révolte benn révolte parce que doomu aadama mo mel su fekkente ni ko japp di ko ci rokk ba meunatul am fum jëm day fippu lolou mo andi wax ji mais gis nga bu fekkonte ni dañu ñew Ablaye loko ko mënoon a waxal danañ bàyyi population yi ñu exprimer wu mo fi andi brassard ah, rouge yi ah, ah, ku ci am lu la metti ngay nga sol liberté de parole moo pour nga gis jamono Ablaye lu ci dernier euh, heure mi yim bëgg def 3e mandat daawoo gis violence. opposition bi lu ñu mën a def yàquñu woon il faut mu dem ba ñi troisième mandat bi day am ci la yàq doog am mais Macky Sall xool leen ba mu tàmbalee ba léegi violence dem ndax ñiy wax ñi muy àndal la ñoo koy waxee bi maanaam da ngay gisu yaradi ko goo xam ni da nga koy seetlu man am na ñoo xam ne bu ma leen seetaanee ci télévision yi dama naan ñi buñ bokkoon plateau man ak ñoom dañuy xeex réew di saaga nit ñi di wax nga ne ko da nga dëgg da ngay nangam wax réewande yoo xam ni doo xam luy ndeyam te dara warulu ko lu mm. dul dama nekk ci pouvoir bi mm. loolu mooy wax ni waaw mais man man benn affaire dafa ma jax dafa ma xaw a jaaxal euh, sëñ Hamidou Ba mm-hmm. ci euh, yéen surtout waa opposition bi rawatina waa waa PDS mm-hmm. PDS tey jii effectivement ñu bëre dan nañu vraiment euh, donc ñaawlu gestion président Macky Sall mm-hmm. c'est vrai mais gis nañu aussi te loolu bëgg naa ci nga indil ma vraiment une réponse à ça parce que gis nañu également ñu bëre ñu quitté ñu quitté au niveau. PDS du PDS. Euh, daw sax dem bu feneen sax garaawul. <laughs> mais fax dem ci ci kër gi ci kër gi dem naan fax dem ci kër gi. non mais maa la ko wax. <laughs> loolu laa lay indil <laughs> mais Omar ma wax ne mbir ma euh, c'est à cause de affaire Karim Wade. déedéet déedéet waaw waaw. du euh, li koy indi dañu xamul ni Macky dafa am ci biir PDS ñoo xam ne ay xaritam lañu.

kan mo wour ci PDS ak wour ndax jaxaso go xamni jaxaso gi dama da ngay gis ño xamni wa PDS dañ naan la un parti pour le PDS loolu garalu c'est grave hein sendi euh, euh, waaw ah wa wa pour un parti bien structuré ah, euh, comme lu melni PDS bu loolu amee rek loolu c'est grave non xam nga nit ah, dafa lëndëm nit dafa lëndëm yow mun ngay nek ci parti bi ba pare nan diw ci APR sama xat la c'est mon ami kenn duma choisir sama ami hmm. di dem ngeen di gisante di waxtan loolu ñima gisone ñukay def ñep dañu mujj dem hmm. man nak dama bok ci ñi radical hmm. man buñu bokul Euh, parti du ñu bokk garam place. ok lu ñu nekk nekk ay xarit. Mm-hmm. mais ña ko doon def ñëpp dañoo mujj dem ñooña nag naka jekk bi nekkee ci parti bi. Mm-hmm. ñun am na ci ñu bëree bëri ñu yaa ngi fàttaliku buñ jon mm-hmm. toog na fii ni Omar Sarr avant euh, euh, avant la l'année prochaine dana ñëw ci ñëpp. loolu andi woon na fi. si waxoon waaw waxoon na ko. dagana la ko waxee woon. kon boobu amoon nañ proximité loolu lu leer la kooku nag. neexut a xam ci ñun. li ñu mën mooy ñi nga xam ne te PDS maa ngi la ci yëgal lu bees PDS ñan ngay gis ñu bees. ok ay vrai vrai PDS mais PDS gi nga xam ne dañoo àndoon ak Macky Sall ñëpp dem nañ. ok voilà léegi par rapport ak euh, temps émission bi xam nga ñetti pàcc la. Hmm. donc pàcc bu njëkk bi jeex na ñu doon waxtaane un peu li jëm ci wàllu tournée économique bi brassard rouge yi kër ñu lakk yooyu yëpp et cetera ak plus un peu liberté d' bi. ñu ñëw ci beneen pàcc bi mu jëm xam ngeen Ousmane Sonko di njiitu euh, Pastef

Ne ñëpp organiser wu man wax na len ko len ko waxat duma ko damay tok ñu mbéj ma ci eh, ci lexu lexu ma lexu wër ci télé di saga di xasse ça passe encore waye dor mom koy ay day yé fitna wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposté sénégalais xamul ku Il dé xamul pas dor day dor di gis ñepp la wax amul exception waye ku jógoon riposte ñepp taxaw nak di wax ndax li xew ni yalla xam ni bu doon passif mo def tourner ñu attaquer ko sax mu défendre tay nga gis nuñ koy traiter les nervi de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kele door nañu ki. loolu moy Sénégal loolu nak su dé ci ni la wara démé ragaluma ku ko jiiñ waaye du ak kenn di la digal demal joxe sa nyu ñu duma la Ken and ak kenn di la digal demal ñu ray la loolu duma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def sen liguey buñ ko mënut nañu mandu ci mirmi ngi dem di and ak ñom di sot nañ ci ndax buñ ci rek fan ak opposition kessé ñom ak askanu Sénégal nous ben demi matin rek mbir jeex kon limay wax sénégalais en tout cas ak sympathisant ak ñi bëgg bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ngeen ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi

mooy leer na nag Ousmane Sonko leer na daal moom il l'assume nee na kuñ fi dóorati na fayu waaye xam nga Kande euh, uxa li waral coow li mooy larax ci biir soow bi muy maanaam nervi yi nga xam ne jamono ji dañoo rax ndax léegi seet nañ ñu depuis mars ba léegi bii yi fi amee dañu gis ab gàngooru borom doole damay ragal wax mbëri balaa mbëri dal sama kaw ndaan yaa ngi ñu tuumaal <laughs> waaye ay nit ñoo xam daal dañu nuru ay mbër maanaam am doole lool mbër mooy ko am doole ci waaw kay waaw kay mbër waaw bu dee loolu kon sañ naa wax mooy ko am doole waaw kay kon dañu ànd ak ay mbër yu am doole mm. nekk fële ca wet ba ñoom it di dóoraate mm. loolu la waral Ousmane Sonko ne ku leen dóoral ndax yow discours Ousmane Sonko bi jàpp nga ni que c'est un discours trop radical wala discours la boo xam dafa laaj tey ji ak contexte bi xam euh, ñu xoolee ci liberté doomu aadama dóor warul kenn ku ñu dóor da nga war a fay. dëgg la ci ci ci li nga xam ni mooy li gën a ndaw. mooy dóor moom fayu rek. mooy tontu bi waaw du kenn man da xam nga moom dafa yem ci nerf yi. kii <laughs> konk bu la dóoree fay. dóor dafa warul kenn xam nga ñun bi ñu colon yi yore dañu am benn éducation bu ñu def ci suñ même les autorités. Mm-hmm. boo xam ne ñoom duñu ko def. nit ki nga xam ni yow boo ko jàppe du wax dara boo ko mënatee du wax dara soo ko dugalee ci kaaf du wax dara soo defee rapport yóbbu ko ci devant le procureur du wax dara mais kooku waroo ko dóor France bu la police de contrôle day teg kafe bu ñu lay enquête café lañ lay lan ngay naan nga wax ñu andil la ndax ñoom am nañ pouvoir danañ la téye benn place doo fa jóge bu ñu la bëggee tëj yóbbu la ci procureur bi bu la bëggee mandat dépôt mu mandat dépôt la wala juge bi tëj la kon kooku ëpp nga ko doole ëpp doole goo xam ne dóor waru ca amu yoon dóor war a bàyyi

violence nee naa la sama tàmbali fu mu mën a jógee rek d'accord ma ci mais violence ki ko jëkkee lañu war a xool xam nga sénégalais yi dañu tàmm tout le temps li mu wax léegi ci biir waxam ànduma ak faut être clair pour nit xam ko tout xaw ma ko mosuma ko gis ci la ci jëmm nii euh, loolu Abdoulaye daana ko wax ku ñu dóor fay leen waaw Abdoulaye loolu loolu Abdoulaye daana ko c'est vrai tay bi nekk opposition ah, ah, ah, <laughs> xam nga dóor benn loi daf ko permettre kenn mu koy def nit ki mm-hmm. nit waru dóor moroomu nitam mhm. ah ki am pouvoir ba mën laa jàpp yóbbu la garde à vue yóbbu la kaso mhm. kooku lu tax mu lay dóor dóor boobu doy na ndax am na pouvoir boo xam ne mooy pouvoir extreme mhm. mooy mën laa jàpp tëj la fenn doo fa jóge kooku lu tax mu lay dóor na la enquête boo defee dara mu yóbbu la ñu téye la boo deful dara mu bàyyi la mais dóor yi amu ci yoon mais nag danaa ñëw ci colon yi bi ñu tàmbali bi ñu ñëwee dañuy ñoom duñu dóoree ñoom duñu dóor seen i mais biñu jëlé ñi doon wax euh, euh, garde cercle. Mhm. ndax mo mo créer police Sénégal il faut nit ñi xam loolu. garde cercle. waaw ñu ci bari waaw ñu ci bari jànguñu woon. si si jànguñu woon xam man rek maa ngi fàttaliku dans les années 70. Mhm, bi ñuy bi ñuy nekk mag. ñuy sol ay tubay yam fii di wër àll yi ñoo daan jàppee yor ay ay ay ay. ay euh, mhm. ñooñu bi ñu leen jëlee. gannaaw seen moroomi neegar lañ ñu leen dóor leen leen ñuy jàpp di dóoraate. loolu moo indi bi nga xamee ne am nañ pen indépendance après ñin ñu ñuy continuer ca di dóor nit ñeeg di leen yeew ak lu ne ñu ko def mais police su tubaab yi mosuñu dóor seen mbokkum tubaab wala loolu moyen la woon mais ci bi nga xamee ne civilisation am na dóoratuñ kenn ñun nag ñu continuer ca loolu di tër euh, euh, mel ne loolu dafa bokk ci sunu yar dafa demoon ba fépp dañoo war a dóore nit ki boo ko bëggee yar doo ko dóor nit ki soit ci tubaab yi li ñuy wax da nga koy punir ci kalpeem mooy portefeuille am mhm. wala nga punir ko ci kaso mhm. yooyu ñaar mooy punition yi gën a metti mhm. mooy ñu tëj ko wala ñu euh, amande ko mais dóor ak yooyu day tax nit ki dër kiis te bu nit ki dër kiisee la ñu daan wax ci bi ñu nekkee xale diw kaso da koo gedd ndax dugg na kaso ba faaleetu kaso bi am na ñoo xam ne fi dool bu ñu génnee ci kaso bi nii dañ naan bàyyil ma sama place. Mm-hmm. maa ngi ñëwaat <laughs> maa ngi ñëwaat 48 heures ñu delluwaat <laughs> jaral leen def lu gën a loolu mooy tax nit ki kenn du banaliser. Uh-huh. ay yóbbu kaso ak i dóor ak i yàq yooyu yooyu war a moytu. dañ ko war a euh, euh, par rapport ak discours Sonko bi. man na ma gisee discours Sonko. man je pense que d'accord ma ci. Euh, discours Sonko. Ah. Ah, non non non ah, d'accord parce que man dama mais aussi mais euh, aussi euh, on peut pas comprendre aussi à côté des nervis non non non parce que Ousmane Sonko kilifa la. Mm. Ousmane Sonko leader la. Mm. Ousmane Sonko dafa am ñi nga xamante dafa leen aujourd'hui. tu peux bon jeunesse tu peux ci mm. donc pour man kaddu yooyu mi mu wax noonu mooy vraiment réagir leen na ngeen réagir en tout cas il va pas se laisser faire man anduma ci waaye nag waaye nag mm. euh, néew ma di justifier aussi li nga xamantene ne mo am mais lan mo indi réaction Ousmane Sonko ci loolu ça aussi c'est là où se situe la question mm. Ousmane Sonko je pense que c'est un Sénégalais comme ñep mm. et euh, une personne bo xamné ko bëgg réewam la man je suis convaincu que vraiment que ku bëgg réewam la quoi franchement di mais aussi lan moko pousser ba mo parce que nit ki aussi soko pousser à bout mais mu xamal la boppam. c'est ça dañu wante deug dañu né ba ci suñu force de l'ordre et de sécurité amuñu benn prérogative. di dooraate di torturer ah d'accord donc suñu force de de de amuñu amuñu joxuñu len mandat bobu pour té ay citoyens dóor len torturer leen len leen. et pourtant mo am ci mbéd mi dañu leen di dóor di leen toroxal policiers yi nañ ma bal mais. les forces de l'ordre dañu euh, dañu jappé citoyens comme des comme ay ay xar. Non, nag ah, donc du yoon. non Loulou c'est le chef de l'État et ça dañu ko interpeller. nest ce pas le chef de l'État euh, à travers le le comment on appelle le ministre de l'Intérieur, intérieur. Hmm. mi nga xamante ni moom moo yor ñu euh, police et même le ministre le ministre des forces armées. Hmm. parce que loolu seen ñoom rôle mooy aar askan lui hmm. vraiment euh, éviter à ce que y ait ñuy daal si suñu ça c'est clair mais bu ces scènes là doit faire poser problème mais beneen affaire li pousser Ousmane Sonko à avoir cette réaction Moi que ni à côté.

ci campagne présidentielle. il faut pas oublier n'est-ce pas comment ma de feu avec yeneen non. yu mel noonu. aussi ba moi de mars passé. Euh, au niveau du stade Iba Mar Diop. voilà gis nga ni nga xam ay pick-up kat-kat ñu la voilà donc moi je pense que effectivement. comme Ousmane Sonko xëy na man loolu côté boobu moi non pousse mais je pense que en tant que patriote. lui hmm. ma xamee Ousmane Sonko mënul en tant que leader. Hmm. di wax ni vraiment que... Euh, euh, moi je pense pas que peut-être c'est une sorte d'incitation à la violence mais mm-hmm. on ne peut pas aussi mm-hmm. on ne peut pas aussi euh, venger la violence par la violence mm-hmm. parce que tu y dit, non, anarchie anarchie mais mais à tous les hommes politiques de ce pays là vraiment politique sans pour autant recruter n'est-ce pas pour torturer parce que sinon dafay pousser ni ñi aussi ñu jël yenn réaction yi. Hmm. donc man daal loolu am pour lu may parce que këru président de la République dañ ko ci temps euh, euh, euh, affaire Adissar, bi on a vu des maisons qui ont été également incendiées. Mhm. mais aussi comme ni ko waxee rek sénégalais xamul ku ku ku ku ku fayu ku fayu bien ça hein oui c'est ça hein mais ah. voilà donc xamul ku tooñ quoi voilà xamul ku tooñ ko ku fay la xam. Mhm. loolu tamit foo ñu ko. Mhm. donc la réaction d' Ousmane Sonko même bu fekkee man ko ànduma ci mais ça peut se comprendre. ça peut se comprendre parce que man. ça ça ça peut se comprendre mais mais aussi Oukha dafa am benn affaire boo xam dafa am Kande. muy dafa ne force de l'ordre nañu nañu maandu loolu. waaw loolu rek laa d' accord. waaw ci li wax lépp. nañu maandu ah, ndax force de l' ordre. waaw maandu waru ndax dañuy jël suñuy impôt di leen fay. mais moom dafa jàpp ni force de l'ordre dañuy féetewu. ci euh, ci pouvoir bi féetewuñ xam nga force de l'ordre bu fekkente ni dañu dem dëkk bu mel ne tey jii Matam wala Ourossogui. Mhm. nga xam ni dafay sa agent yëpp ëppul ay vingtaine trentaine. Mhm. Euh, euh, nervi mat ay cent centaine. Mhm. li ñu man rek. mooy dox diggante ñoom ak population yi. Mhm. ñoom loolu la ñu mën. Mhm. mënuñu def leneen ah. loolu man comprendre daal ndax gis naa leen ci vidéo yi. mais nag euh, defuñu loolu. ah mais maa ngi ñëw. waaw kay parce que am na benn vidéo ma naa la may nga wax. waaw am laa jëm si. bi nga xamee ne manifestation yi. man tous les jours dama doon xëy ci manifestation yi di observer. Mhm. mooy manifestation booy yi. amul fu ma demul ah. tribunal yembal Malika amul fuma demul fuma dem ba fofa eh, wagneko damay dox di mm-hmm. nervi police tout à fait c'est grave tout à fait lolu ñi may interpellé moy la police mm-hmm. ñoom buñu bëggé nit ñi gën jox cër mm-hmm. ñoñu nek seen ko sinon buñu démé ba police ak ñuy dem ba yor ay brassard hmm. di dugg ci pick-up bi ma gis bi ñu sol ay seen euh, ah. équipement yooyu hmm. am ñu ci dugg yor ay brassard nga xam ne xamatoo kéeki boo demee ci tribunal jour bi ñuy bàyyi Sonko nii lañ doon def di ronde comme police ah dëgg ci seen pick-up euh, nekk ay nervi mais bu fàttali loolu seen i kilifa seen i njaatige seen njaatige ñoom police mënuñ seen i kilifa seen kilifa politique ñoo ñoo ñoo waral loolu ñoom ah, mënuñ nga police waaw police ba muy nekk policier di def concours am di def police waaw nee na danaa jël ordre mais ordre bu républicain rek lay jël. waaw ordre républicain laa jël mooy ban. mooy ki ma war a sant li ma sant est-ce que droit la oh. parce que jàngal nañ leen lan mooy droit ak lan la nit ki am droit ak lan la ñàkk ci droit am soo ma ko bëggee sant man ma Matar mii te loolu waruma koo def duma ko def ay sénégalais lañ comme ñun buñu bayé ay nit ño xamni ay sacc lañ ak wayu ak raykati nit ñu and ak police bi di nek ci seeni auto wala ñu leen di protéger bu yagge li muy indi mooy dañuy dem ba ñu xamé ki ki lolu lan lay jur moy da ngay door ba door ko wër te dóor hmm. wala ñu door kuñ wër kuñ wara door mais bo déggé ma oh, tax ma ne yi il faut police dénoncer leen di leen japp di leen inculper di leen yobbu commissariat di leen japp di leen japp comme ay civil lolu buñu ko deful

la ñu wax. Hmm. té comme ni ko na ko wax ci yeen ñaar sank. suñu impôt suñu yoy ci lañ di fay. dafa politique askan dafa mel non gouvernemental voilà voilà personnalité non ça c'est vrai cest à dire que je pense que effectivement euh, euh, xam nga hmm. euh, encore une fois. ci réew bu melni Sénégal am une police une gendarmerie en une fois des forces de de défense et de sécurité le recrutement n'est-ce pas des bras armés yo xamantene duñu ay policiers ay partis rek ñu leen di recruter ay politiciens rek aussi xam nga ami du fi lutam mu garaaw sax. waaw nguur gi ci bopam lañu euh, euh, c'est vraiment ce sont les autorités recruter nervi pour mm. les réactions nest de la police et de la gendarmerie c'est très important mm-hmm. c'est à la police mm-hmm. Nous, responsabilité on est d'accord parce que euh, est vrai que les ils sont là mais suñu Mm-hmm. dañuy dem mais ñoom ils ont opté justement pour assurer la sécurité des personnes et eh des mm-hmm. on est d'accord. mais tey bu ñuy sëy yeneen loo xamante ne mais ak fu mu mënta jógee nag dama ne ak fu mu mënta du bu jógee ci côté Macky Sall aussi dañ ko war dénoncer mm-hmm. parce que aussi Macky Sall ñun ñoo ko fal aussi ñun ñu teg ko fii man je pense je comprends la réaction de de côté côté boobu là, Serigne Mactar waxee tey ji dans un mais xoolal ci yeneen pays yi nga xamante dafa am ay ministres ay milices c'est une occasion pour moi de parler même de ay kii milice dans une dans une république warul am non warul am parce que ay tension rek la gis nga li fi am on doit en parler parce que il y a des, des des des des des des, des, exactions commises, n'est-ce pas, par ces nervis-là, de loolu non, ça ne doit pas continuer. ça ne doit pas continuer parce que aussi bon xoolee Ousmane Sonko. voilà ah d'ailleurs discours am bii moom boo Ousmane Sonko avec ces ces personnes ces cette jeunesse bi nga xam daf ko topp aussi ëllëg mën naa indi affrontement entre. waaw mais affrontement amna na ba noppi. waaw kay dafa àggagul fi mu wara ag mais amna, man dem rek bind ci ci ben ci ben kay ni le tout à fait mm-hmm. réew mi mi ngi jëm ci fu bon. Mm-hmm. ñepp di sétal gis nga. Euh, lépp loo xam ne yaa ngi koy def l'individu te mu xam sa famille xam sa kër mhm. mën naa fay ah kay te loolu fa lañ jëm <laughs> ah, waaw ndax nervi bi jàpp sama doom wala sama rak gaañ ko mhm. dootuma xàmmee ban nervi la bu nervi nekk sama watu kër rek damay dem ñu fayu ah, loo loolu nag loolu mooy ah, inconvénient bi nga xam ne euh, il faut ñu moytu ko mhm. kooku du intérêt kenn du intérêt même gouvernement bii koy def parce que nit ñi bu leen neexee fayon parce que mën nañoo yu xam nañ ni ñuy fayoo ah waaye dañoo am luñ bokk te bëgguñu mu yàqu kenn ku ne di ko sàmm ni ñu koy sàmmee mooy ñu joxante cër gis nga bi nga xamee ne àdduna amagul organisation bii mu am tey état mais buur yi danga daan fekk benn buur ëpp ko doole dak rey ko jàpp ñenn ñi jaay mm-hmm. Mm-hmm. nangu royaume mm-hmm. léegi gannaaw loolu jóge nañ fi ba am lu luñ fi teg nañu ko respecté Macky Sall il est le premier responsable ah ci nervi yooyu di ànd ak ñoom ku ñu ko jiiñ tooñ ko. Mhm. parce que mooy président de la république du Sénégal moom la ñu fal. bu jàppee ni ñooñu ñi ngi koy rendre service rendre wuñ ko service ndax mën naa andi loo xam ni kenn xamul fu yam yem. Mhm. Sonko nag li mu wax il faut ñu comprendre li mu wax. Mhm. du ma cautionner lépp. li mu ne na autorité yi maandu ndax autorité dañ leen di fay pour loolu. kon waruñoo maandu. mais li nga xam ni moom nangu naa ko. mooy dóor moom fayu kooku moom dama ko cautionné cent pour cent te ci loolu laa nekk man ku ma dóor ma fayu mhm. loolu moom lu ko gën a leer amul dóor fayu mais dóore moo wërtam

ñoom li ñu wax bari na ginnaaw xaatim yi nga xam ne nguur gi xaatimoon na ko ak ñoom te boobaak léegi def ci dara jooytu nañu it beneen mbir muy maanaam tout ndaw ñi maanaam élèves yi ndax gis nañ ni loi yi dafa protéger xale yi ba nga xam ne léegi ñoom ñemewuñoo ñoom jàngalekat yi ñemewuñoo laal xale yi waaye léegi dafa mel ni xale yi de retour li ñu naan la peur xaw ma se déplace maanaam ñoom léegi ñooy waaw change de ñoo ragal ndax ñoom xale yi léegi dañ leen di xookatal ñu ne nag ñoom dañoo bëgg ku ñoom it alors dañ ciy déglu kenn ci ñoom ginnaaw seen conférence de presse boobu ñu déglu ko ñëwaat. ñun jàngalekat nag. mu mel ne dañ ñoo ci tënk boobu nga xam ne yoon moo ko tënk. ba tax na aar na gone yi aar goo xam ne benn jàngalekat amatoo sax xalaatu nee naa jubbanti sama ndongo bi ndax dafa jalgati. bi ñenn ci ñun jóge ngir def loolu. tax na ndongo yu bari jëm ci kaw jàngalekat yi. di leen bunduxataal di leen xoññañal àgg sax ci di leen dóor ak di leen xoj ngir faat seen bakkan te boobu ba léegi gisuñu nguuru senegaal ñu yëy bi ci mbir mi lu ëpp nag day tuuru loolu moo tax ñun juróom-ñaari syndicat yi li ëpp ci jàngalekat yi tànn ñu ne na loolu dakk bu loolu amut nag ñun dinañu jëlal suñu bopp suñuy matuwaay du ñu xaar ba kenn ci ñun ñu faat bakkanam ñuy soog a jug ñaareelu tomb bi mooy dañoo signé woon ak nguuru Sénégal ay tomb yoo xam ne mu ngi jëm ci lu jagal jàngale ak ci lu defar nekkinu jàngalekat ak képp kuy yëngatu ci biir njàng ak njàngale rawatina ñi ñuy tuddee ay inspecteur tomb yooyu biñ ko signé ak ñoom ba tey defaguñ ci lu bari duñu wax ne defuñ ci dara waaye liñ ci def mi ngi tolloog géej goo jël puso samp ko ca seppi ko la topp puso ba ca ndox lu toll ne loolu lañu def ci li ñu déggoo woon ak ñoom yéen ñëpp yëg ngeen ni nguuru Sénégal dafa war a jël juróomi junniy jàngalekat yu yees mottalee ko yenn yenn barab yu manqué ay jàngalekat loolu ñu yëgal opinion publique nationale et internationale këne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñun moom tànn boobu kaccet ñu ca ndax bañuy teg seeni tomb yi nga xam ne ci lañuy sukkandiku ngir tànn juróomi junni yi ñun yëguñu ñun tinuñu moo tax ñu woo képp kuy ab jàngalekat nga bokk ci G7 wala bokkoo ci waaye ngay ab jàngalekat ci ñu yëg lu talaata fan ak ñaar ci weer wi bu ñu jàngee ba juróom-ñeenti waxtu ci yoor-yoor nañu dëddu classe yi bisub àllarba moom di ñaar fukki fan ak ñett bu kenn teg sa tànk ca barabu jàngukaay ya ngir wan nguur gi ne li mu wax ne dafa amut lu mu faje soxlay jàngalekat yi ñun ñi ngi xel ñaar ci loolu ndax gis nañu ne mi ngi def alal ji feneen fu bokkul ak fi mu dige woon ak ñun te ñu signé woon ko ak moom jërëjëf euh, mbokk yi kon mu nekkoon euh, signaté bi nga xam ne moo waxoon ci kàddug G7 dégg ngeen nag pàcc yi bari na benn bi ni ma ko waxee mooy wàllu li ma ci gën a jaaxal nag mooy nee nañ dem nañ ba bëgg a faat seen bakkan ñoom élèves yi am ñu ciy sax dem ba bëgg a faat seen i bakkan mais li ci gën a doy waar uqa foofu it mooy ñoom nee nañ bu ko nguur gi saafarawul danañ ko saafara kon boo xoolee foofu encore rapport de force bu bu nar a amaat la te mu nar a jul fitna donc ndax gisoo ni foofu uqa yi beneen fitna nar na amaat xam nga euh, suñu tàmbali wax léegi dama lay wax ni la waaw nañu xolaat sénégalais yi ni ñi comporté wu mhm. lan moko ko indi mhm. gis nga doom adama kenn du ko yar ngir yow dang ko yar ngir bopam mhm. ñun nak dañuy yar nit ki ngir ñun moy da ngay ñew ci sa kër papa am yar boh xamni day leer nañ bo génné ci mbedd bi melne kenn xamul nga xam sa papa bu togul sa ginaaw di la déglu sax ba ngay wax te gisoko danaan kii du suma doom kooku kon da nga koo yar ngir yow bu la gisatu rek def lu ko neex nit ñi dañu war a jàngal seen doom yi ki lay ba ban gis-gis nga war a am ci bu ñu fàtte nii sun mag ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy fii ci réew mi la plupart du temps tudd nañ doom ka leen doon jàngal loolu dëgg la ba ci Cheikh mat Bamba mi <laughs> ka doon jàngal Maam Mor Anta Sali lañ ko tudde mm-hmm. sall kon jàngkat ki lay jàngal lu mu la mën a def danga nga ko war a naw waaye bu ñu demee ba jàng jàng ki lay jàng jàng euh, ki lay jàngal joxatoo ko cër doo fa jëlee xam-xam te man dama gëm ci ñi nga xam ni dañu bokk ci ñi nga xam ni sëñ Tuubaa ni mu waxee ni kuy jàng noonu la war a def muy kun kaati man nañu ko jël dugal ko ci bu ñu àggee sixième ñu dugalal leen ko ndax fi ñu lu mel ne euh, wax boo demee ci ñiy def section arab ñu ngi leen koy dugalal pour jikko kon kunkaati man nga xam ne sëñ bi da ciy wax ne nit ki buy jàng ni mu war a mel dafa rey jikko yu bari jikko yu baax mooy danaan la nit ki na am jikko ba mel ne mbaam nga xam luñ ko teg mu tegoo ko na mel ne xaj ba nga xam ne lu muy dàq fii mi ngi ko teg bët da koy topp mm. na mel ne muus ba li mu soxla mm. bu nekkee ci yow dalay jege pour am ko non lañ war di jàngale nit ñi ba nga xamni ne jàng hmm. defaloo ko ngir ki lay jàngal doto ko gis man sama njabot tout temps bu ñu dem école dama naan la ki lay jàngal lu mu la mën a wax mu ñu hmm. bu la deful violence rek hmm. na nga ko muñ bul ko tontu bul wax ak moom ndax li mu yor nga soxla te boo ëllëgee doto ko gis waaw doto ko gis te boo ko amee jëratul ngay dem ca moom waaw voilà kon léegi yow fexeel ba li mu yor nga jël ko te loolu lañ ko sëñ bi jàngalee xale yi nañu xam ne ñi leen di jàngal ñu seen ay ennemi waaw kay euh, ñi yor parents yi nañu yar seen njaboot yi ci biir kër yi wax leen ne ki leen di jàngal du nawle kilifa la. Mm-hmm. ñoom dañ ko war a jox cër. Mm-hmm. ëllëg sax dañ ko war a xoolaat. Mm-hmm. di ko gërëm te danañ ko gërëm waaw mais day fekk mais aussi ndax gisoo ni loi yi dafa aar xale yi sàggane jàngalekat yi parce que actuellement situation bi mu demee nii doy na waar dégg nga léegi professeurs yi ak jàngalekat yi li ñu wax ni maanaam waa yi wax na ko ba muy commencé sa signaté boobu nee na aar nañu ah, xale yi aar yu woo xam ne ñun mënatuñ ci ñoom dara. ndax jàpp ne aussi nañu aaree xale yi noonu la ñu war a aaree seen jàngalekat yi. moom laa lay wax ah gis nga aar ah, nguur gi ah, la war a aaree gis nga nee naa la eh, suñu état yi africain dañuy toppandoo lu dul seen aada. bu njëkk professeurs yi fi nekkoon. Mhm. ak enseignants yi dañ daan dóore. waaw loolu dëgg la mais ñëpp dañ leen a bëggoon. Mhm. parce que dañuy def ci yow xam-xam. teg ci ne boo daan tasee ñoom ci mbedd. waaw da ngay jàdd koy da ngay jàdd directeur <laughs> école bi. jox koo gis voilà. bu école amul sax. Mhm. boo tasee moom ci mbedd da ngay sëgg wala nga fexe ni. Eh, waaw monsieur mi noonu. Euh, jàdd ci mbedd yi daw. Mhm. léegi ñu dem ba nga xam ne enseignant bi euh, euh, presque da nga koo xeeb. ndax say parents ñoo la jéem a melal noo xam ne sax meloo ko si éphémère. mooy Euh, loolu benn marocain mas di wax man ni ma Afrique ay faux bourgeois ñoo fa am. Mhm. yàlla jox la salaire. Mhm. nga am benn oto wala ñaari oto. jël sa doom di ñu koy yóbbu école. Mhm. ba mu defa moom baayam bu asamaan si doon wàcc mu téye ko kooku du respecté enseignant bi. waaye yow mi nga xam ne yaay waajuram. yaa ko war ni kii ak mbub mu xotteeku mi mu sol. ak yëre yu tàll yu dagg yi mu sol. moo lay li nga soxla moo la ko mën a jox. lii ma nekk tey moo ma ko jox da ngay gis fi koo xam ni tey gouverneur la wala préfet wala mu nekk ministre. danaan dox cinq kilomètres 6 kilomètres di jàngi. du añ wala day yóbbaale caagari. ak soow di ko añee. boo ñee koo doxaat 3 kilomètres demi wala 4 kilomètres. tey jii moom mooy dem ba mel ne du woon moom. jël doomam yëkkati ko teg ko foo xam ni. yow da ngay yéemu ndax ñi fi nekk ñëpp di jàng di dóor profit. Mhm. seeni i doom yi baadoola lañ. Mhm. mooy ñun ñii nekkoon ci àll nga xani bañ daan eh, ba nga daan dox lu yag sori doga jangi hmm. wala nga nekkon ci daara ñu lay dóor di hmm. dila di la ngay dox ay 15 km dila la lolu mata ño jël suñu doom def leen ay buur hmm. li moy problème bi leneen li nak état bi li mané ni dañuy topando ñun bokku ñu tuwa bi ay mœurs bokku ñu ñuy fonctionner suñu doom yi nañuy dem ci ñi leen di jangal okay te di respecté leen di leen wax ni sama doom ji dama la ko denk dama ko taxawul ndax loolu mooy sunu aada waaye nga xam ne da gis ñoo xam ne xamuñu kii jàngal seen doom mm-hmm. mosuñu ko gis intéressé leen sax mm-hmm. dañ naan école bi dana ko defar xale bi def lu ko neex ñun bu tubaab bi indee dara ndax loolu tubaab bi ko fi indi mm-hmm. mooy liberté xale bi droit de l'enfant ainsi de suite nangam ak ki nangam ñoom tubaab yi ko defoon ñu ngi koy rëcc fi ñu toll ndax dem nañ ba seen école yi maître day wax

bu ñu 15 jours dañ tok 15 jours parce que dañuy am dépression ndax ni leen xale yi def nga wax ñu la madame Timon. waxo deug té loolu ñom ñing ci dugg ba pare ba koo réccu. ñu ngi koy ah. réccu fi ñu toll. Ah. ñun lan motax ñu fekk yoon wi ñu jëloon mu baax. Ah. moy respecté ki lay jàngal ñu bëgg ko dindi di topando ño xam ne. voilà dafa doy war trop Kande. waaw Amidou euh, gis nga ko euh, ci euh, ponk boobu damay rejoindre mm. suñu invité bi di maktar Sylla ouha mm. ci analyse bu pertinent surtout ci dernière donc analyse bi nga xamné def na mais Amidou mm. Euh, c'est l'occasion pour moi de enseignants Oui, c'est ça vraiment de encourager ba pare de féliciter xam nga mhm. parce que nous nga dara gënul métti. Mhm. sa responsabilité. inculquer ay valeurs. Ah Madame, solal xam-xam. ci bopp doomu aadama. loolu dara gënu ko mhm. parce que sa responsabilité est devant les hommes et devant le créateur. on est d'accord lima lay wax ni je le sais parce que nek na ci secteur bobu pendant plus de 10 ans donc xamna bu baax mm-hmm. li nga xamantene ne kat yi ñu koy denc ci walu vraiment donc xuma la sax leneen mais ci li nga xamantene lolu may vraiment jël xam-xam diko solo ci bopp nit mm-hmm. ken mu na len fay un enseignant xolal ken mu mënu ko fay mm-hmm. maintenant si je reviens ci suñu état yi li señ bi wax lolu mo fi nek gis nga ñun on n'est pas euh, malheureusement lepp luñ fi jël rek dañ koy calquer à l'occidental alors que réalité bokkul lu tax ñu tuddee ko eh, ministère ministère de l'éducation man de lu ma xam ci éducation moy yar. yar dañu wante dëgg. Ah. mais duma la jox sama dom ba pare ma jangalé ko ne ma ko ne ma rek dama soxla rek nga jangal ko mais li ci dess maintenant bu ko dóor wax leneen ak leneen. gis nga violence ci bopam euh jangalé kat yi buñu sañon sañoon kenn du jël cravache yëkëti dóor ko. dóor dóor xale c'est est enseignant ko def vraiment c'est le dernier recours. c'est le dernier recours. on est d'accord mm-hmm. alors jël xalé tamit aussi il faut ñu xam ben affaire. da mm-hmm. dafay màgg.

mais quand lu mel lan lay l'école qu'il soit l'enfant le plus brillant na doon xale bu gën bu intelligent mm. mais gis et puis même bu fekkee sa ce bi ci école bi après génn na ci mais loolu du ko njëriñ dara parce que xam lu parce que amul éducation yaruñu il n'a pas cette éducation da nga xam-xam bu un peu partout mais gis nga bu fekkee da nga génn ci école mm. amuloo benn respect amuloo craindre loo ñooñu ñoo gis nga genre gens yooyu ñoo ñoo gën dangereux ils sont encore beaucoup plus ah pires tu sais pourquoi mm. parce que quand l'enfant quand tu formes l'enfant à bas âge mu dem magalee ko noonu mu dem vraiment am am cette culture là ragalul kenn faalewul kenn. Mm-hmm. am xam-xam am lépp am xarañte ci wàllu vraiment ci li def. Mm-hmm. mais parce que respecté wul amul éducation. souvent ñoom ñooy def. di di di di def ay des détournements. détournements voilà c'est ça c'est ça voilà c'est ça mais je voulais préciser aussi que suñu technicien bi. Euh, pour signaler ko mën na jéem a jokkoo ki nga xam mooy Saourou Sène. Mm-hmm. di kenn ci syndicaliste ci wàllu njàng. moom euh, bu mënee dugg ci téléphone bi. dina ci mën a intervenir. ah ça c'est une bonne idée allez-y voilà Saourou Sène. waaw man je pense que euh, loolu am importance. gis Afrique gis l'Afrique, Afrique euh, Afrique euh, le Sénégal et l'Afrique ñun ay africains nous sommes ay France Arrêtez on là que c'est nos dirigeants là il faut que vous arrêtez de de de calquer n'est-ce pas à l'aveugle l'aveuglette les décisions ou encore li nga arrêtez ça et respectez vos peuples respectez respectez gens parce que mais à chaque fois que ngeen des décisions vraiment de cette manière là ça pose problème euh, euh, C'est la colonisation qui continue encore une fois colonisation mm-hmm. c'est la colonisation là qui continue qui continue euh, peut pas l'accepter. nous nous nous une non droit tu verras bien tu verras bien que les dans les écoles parce que xalé bi bu démé ba mu xamné ne que légui mën na def dara ba pare dara duma mhm. ci fekk dara duma ci fekk mën na taxaw sama maître ba bu waxee ma saaga ndeyam oh, on est d'accord alors que koku dafa jël responsable ki nga xamanté sa morom bàyyi la wala sa sa morom yaay wala mo mat la ni jaay ah. ngay taxaw diko saga wala ah. tu n'as pas peur n'est-ce pas de, de, cet enseignant mais koku lu mu lay jangalé kon yow ko yow do do doo craindre les États-Unis et la France da ngay wax nga ko yow tu as eu cette société là mhm. élève taxaw

gis nga loi yi li ci ëpp yàqul seeni doom suñuy doom la ñuy yàq ñun baa doole yi euh, ndax ñun mënuñu distinguer liberté ah oui c'est ça ak ak ak ak ak ak xam-xam ñun daal l'essentiel yóbbu nañ suñu doom école yóbbu nañ ko xam nga da wax lu am ah. solo léegi mm-hmm. nii nañ euh, nañ ci dindi éducation bi mm-hmm. ah. xam nga enseignement et <laughs> éducation la bu fekkente ni nag ñoo ànd mm. mais kon nañ dindi l'éducation parce que l'éducation mooy ah, am ci ëpp njëriñ éducation boobu mooy xalé bi ñu fexé ba mu nekk nit so gisé ñu naan lég lég nit ki dañ ko yobbu mu jang euh, soo gisee jàngkatu alxuraan yi bu jang alcorane ba paré ñun leen ñu leen yobbu ñu tarbiyé leen hmm ah way dañu xamni jang alcorane bi do dong doyul ci mom doyul ci mom ndax mën na mokkal alxuraan bi ci ñaareel ñett waaye li ñu bëgg moy mu nekk nit ha ah. moy mëna jakarlo nit ñi di wax ak ñom da ngay gis borom xam-xam bo xani ne soi-disant nenañ am na xam-xam te yarul ah way dañ ko tarbiyé wu li nga wax légui moko ko dëgg la dëgg la dañ koy jangal ca bayiko ci ni ko neex lay jàng. waaw mooy li mu bëgg xam dina ko xam mais yaruwul da nga koy gis ci suñu télévision. c'est clair koo xam ne mag gis koo xam ne eh, de grands d'éminents intellectuels. Eh, mais suñ bu ñuy wax ak nit ñi sax mais c'est pas du respect. ba ci gis ñoo xam ne dañu leen a jàngal te yaruñu. ñu waxee ci télé bi rek wala rajo. nga xam ne xam ni jàngal nañ leen mais yaruñu leen gis ci ñoo xam ni moom la ñuy jàng mën na tuuti lool mais yar ba bari yar ba mooy ëmb xam-xam ba mooy tax boo ko gisee mu toog rek su waxee même bu xam-xam bi bëriwul yar ba mooy yóbbaale xam-xam ba loolu nag il faut ñu distinguer éducation ak njàng Sénégal nag fi ñu toll dañuy jàngale mais éducation amatul moo tax xale yi yaradiku mhm. topp enseignants yi di leen saaga di leen dóor te loolu jëluwuñ ko fenn futul ci tubaab bi te ñun mhm. tubaab a waratuñ leen roy ci lu bon mhm. mën nañ leen a roy ci li ñu baax le mais li ñu bon nañu ko teg fële nit ki da nga yor sa njaboot Europe ñu juddoo fa màggee fa lenn rek moo lay sauver ci yow nga ni leen lii de tubaab baax le na ko lii de bon le na ko yow nak fexel ba li nga bax li jëlee ko Afrique. Mhm. nang ko garder li tubaab bi bon le bu ko jël jël lu bax li mhm. waaw et c'est important je pense que yéen euh defo ngeen ci euh, liggéey bu am solo en tout cas le le PDS bi euh, avec le président euh, Abdoulaye Wade bi nga xamantene dafa jëlone aussi. euh, le budget oui oui ah, allez-y oui Saourou Sène waaw d'accord. Euh, donc moom kenn la ci nga xamné dañu yor syndicaliste yi fii ci Sénégal alors monsieur Sen waaw. salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu.

moo yore réew. kon nag njàng ak njàngale boobu kenn waru ko foowee rawatina ñi nga xam ne ñooy acteur éducation. comme xale yi. wax ni tendance bu ñu gis temps yi def di tendance boo xam ne war na titloo ñëpp ay élèves yoo xam ne dañu am audace am courage yu attaquer seen professeur ba di leen def lu métti di leen def loo xam ne kenn mënu ko nangu. loolu nag ñun en tant que organisation syndicale li wérte wóor mooy euh, mënuñu ko nangu te dañ koy condamné wax gouvernement au Sénégal aussi il faut que nous assumer ses responsabilités. L'État li tax ñu wax mais la mais législation bi ñun xam nañ ko ce bi lu faire à l'école, le conseil de discipline bi bu ci le conseil de discipline bi proposition rek la am mais inspecteur d'académie bu nekk fële toog ci bureau fait fekkewul mbir mi kooku moom mooy décider kon euh, dañ ni il faut que législation évolue évoluer pour que xale bu defati loo xam ne waroo ko def ci sa professeur ndax seeni professeur seeni waajur lañu ku ko defati ci ñoom mais ñu sanctionné la sanction boo xam ne sanction bu exemplaire lay nekk. voilà mais monsieur Sène euh, dañu seetlu léegi ci conférence de presse bi G7 def dañu ne ñoom euh, bu ko état bi réglé wul ñoom dañu ko régler à leur manière est-ce que gis ngeen ni loolu aussi solution la. waaw gis nga gis nga xam nga li li li ñu jàpp rek mooy. Euh, mbajum mbéjum kanam parfois wolof dafay wax ni borom moo koy fajal boppam. Mhm. ñun nag nekkuñu woon ci dynamique boobu parce que dañ jàppoon ne dañu nekk dans un pays organisé te ma wax aussi à l'endroit du gouvernement du Sénégal gis nga ñoom ak li mën a xaw am nañ ci responsabilité parce que nag gis nga bu ñu fonkoon jàngalekat yi ni ñu leen war a fonkee jox leen gëdd guñ leen war a jox mais. ñëpp ñoo leen di fonk mhm. mais dafa amoon jamono yoo xam ne dañ xaw banaliser l'enseignement, enseignement banaliser les enseignants xaw leen xeeb de telle sorte que ñeneen ñu aussi dañuy jàpp ni comme nous la suñu yoon ci mhm. donc donc il faudrait que gouvernement bi xoolaat responsabilité boobu xoolaat un type de rapport le avec des agents de l'État comme les enseignants Lolu bu son mhm. ci affaire de violence bobu. Mhm. xam nga duñu en tant qu'organisation, nous duñu wax mukk kat yi nek leen ño xamné ku leen à gauche leen à droite du suñu rôle suñu mhm. rôle wax d'abord école lieu de violence rapport yi am entre ay élèves ay rapport pédagogique la ñu war rapport ki yore xam-xam te yene ko jox ki mu am en face de lui pour faire de lui benn citoyen boo xam ne bu ëllëgee day nekk citoyen bu respectable bu hmm. responsable wante nag encore une fois de plus bu dee mbir mi nag dañuy toll fenn foo xam ne mais dañuy créer la peur du côté des enseignants hmm. mais il faudrait que ñun aussi ni jël suñu responsabilité parce que loolu mënuñu ko nangu hmm. voilà donc Saourou xam naa ne may garder ligne bi uxa euh, peut-être Kandé waaw man dama bëggoon poser benn question sax euh, balaa sëñ Matar de xëy na euh, sëñ Saourou waaw waaw li ma bëggoon xam mooy que sagam jël nañu mesure bi alors léegi ban conséquences. alors la war la war surtout en tout cas ban répercussion la war parce que comme ni nga ko au delà de l'éducation de l'enseignement il y a l'éducation maintenant bu fekkee dañu permettre dañu jël nañu mesure bi ban conséquence la war d'abord sur le niveau des élèves et surtout aussi euh, sur le plan euh, donc un peu global bonne mesure nga doon wax. Mhm. mais euh, madame la mesure euh, bi nga xam dañ ko jël en ce qui concerne le la non violence wala ko ba léegi benn maître bi. amatul ben sañ-sañ vraiment dóor élève bi wala euh, voilà. voilà et abord bu ma da nga may permettre d' abord sama xarit boobu sama wëlëree ku baax toog foofu Matar Sylla muy uqa xaw ma woon mu ngi toog foofu mais moom ku jàmbaare la su ma xarit la su ma la maa ngi koy bu baax ba pare nag wax dëgg ñu bokk bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Saliou Mbacké ah, alors wa wax ni rek euh, gis nga bu ñu dindee euh, yar ci école mhm. maanaam maître bi ñu ne ko amutoo droit dóor xale mhm. ci la école tas ah, ah ouais. oui, oui, oui. C'est vrai. toba dafay wax ni kii aime bien sa bien. ah mais oui. gis nga nag wekk na doomam. du caagan def ko bañ. daf koy corriger. Hum, hum. te loolu nga xam ne ñun dañ koy def amul kenn koo xam ne ci ñun tey mais dina dóor doomam am leneen lu keneen di wax ci loolu. parce que li tax mu koy dóor moom xam na ko bu ëllëgee dafa bëgg a jàpp ni mais kii nii de dafa bëggoon ma baax moo taxoon mu doon def loolu. kon kon yooyu il faudrait que nous jappni li Europe du Afrique. Mm. Ah, voilà valeur yi bokkuñu. merci merci. gis nga même buñu démé tay di wax ay modernisation des daara. Mm-hmm. gis nga dama ni ñi nga xamné suñuy daara ñoo leen formé képp ku leen gis respecté leen wég leen. du mm-hmm. ah, ah, ñooñu ñooy sànni xeer du ñooñu ñooy sànni mag ñooñu koo ci xool ci kanam mu sëgg. parce que daf la jox sa gëdd jox la sa cër. te nag gis nga li ñu am valeur. mu ngi fi ne gàññ te exemple yi bëri na. Mhm. man de du ni ma doon taalibe murit moo tax ma koy wax wante xam naa. Mhm. ki nga xam ne danga am yar wala nga am chance am tuuti yar boo xam ne da ko jële ci Serigne Touba. Mhm. képp koo gis di ko jox sa gëdd. di nga ko respecté te day doon ñoo xam ne sax dañu am xam-xam wante boo mënoo leen xool ba xam ni ñi am na am nañu xam-xam. voilà c'est kon kon gis nga yar boobu. éducation boobu valeur yooyu. dafay am solo suñu école xoolaat ko gis nga suñu programme yi encore une fois de plus mhm. dafa laaj même ñu réviser leen mhm. damay terminer rek ci benn exemple mhm. fekkee na benn conférence bi nga xam ne man dama ci bokkoon université tout à waaw conférence boobu dañ wax ni eh, dafa am benn suma naataango bu ne élèves yi tey ñi nekk terminal dangay gis élève boo xam ne dafa war a dem bac. Mhm. mais mënul mënul wax kan mooy Victor Hugo. mënul a wax kan mooy Molière mënul wax kan mooy Guy dama Maupassant. moom dafa am moom moom bi mu waxee loolu benn xale moo jóg nekk ko c'est dañu doyal ci Molière ak Guy de Maupassant <laughs> ak Alfred de Musset ki ñu soxla ki ñu waxtaanal ki ñu jàngal kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul dafa jot suñu programme intégré loolu dafa jot suñu programme intégré kenn mooy maam Alaaji Malik kan mooy Cheikh Anta Diop li nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp dañu def loo xam ne lu am solo la ci àdduna bi yëpp pour ñëpp dafay jot nag suñu école gëstu yooyu euh, kon loolu moo tax ma ne la euh. ah ku abi <laughs> malheureusement par la force da ngay delloo parce que li nga am moomoo ko. c'est ça. wante nag ki am li mu war a jëfandikoo. ba pare war cee jëriñoo ne ko hmm. ñukk dem abi. Hmm.

way bi nga xamni señ bi da ci da ko da ko bind pour ndaw ñi jang ak niñu wara mel ki leen di jangal waaw ak niñu wara mel nga xamni dañuy wara yor jikkoy mbaam sëf wara yor mhm. jikkoy xaj buy dàq dara feeg mi ngi koy gis daf ko wara top mhm. topp mi ngi mhm. beutam ngi ci tegu rek da koy top wala mu mel mous nga xamni bu bëgge yap nga yor ko day tafu ci même lo mu delu ci non la nit ki wara mel ak ki koy jangal non mbam sëfit loo ko teg dana ko jé lu loo mën a teg ci kawam rek dana jima jog ak mom mu ni na nga ñëme xif ñeme mm. ñeme tumuranke te bul mm-hmm. bul bul jàmbat loolu mm-hmm. ndax jotul ñu jël téere yooyu yu mel noonu dugal ko lu à part de sixième ah, di ko jàngal xale yi ba nga mm-hmm. xam ne danañ xam nit ki ban comportement la am ak vis-à-vis ak ki koy jàngal ndax dama jàpp ni ku mel ne tey Serigne Touba ñëpp xam nañ te turuñ ko tuddee ku doon jàngal Maam Mor Mhm. lu mel nonu nak gannaaw kat bi dañuy dem ba ngay tudde ko do man mi wax ak yow kima jangal alquran amal nañ ko mhm. bis bo xamni buñu bu ñu tabaskee ñetti fan ñëpp ba ca top ku ma sa mhm. jàngal da nga fay dajé ñu ray ay nak diko magal te da nañ ñu door comme li nga wax léegi kém bien sati bien euh, lolu euh, est-ce que du fofu lañ wara delu ndax tubaab bi nga xamni sax ñom ñoo ni won bu leen dóorateeg bu len ki réccu nañ li taxone ñu def ko ndax seen enseignement <laughs> moko yak loolu daal laa bëggoon nga nga nga kii euh, loo ma ci mën a dolli. waaw gis nga sëñ Sylla li nga wax noonu lu lu wér péng la gis nga li tax exemple yooyu nga joxe ko muus bi gis boroom yàpp bi topp ci moom. dafa gis njëriñam ci yàpp boobu. moo tax mu topp ci. gis nga xale bi. tànk wegul jàngalekat bi gis na li jàngalekat bi yor muy xam-xam moom dafa bëgg a jël lépp ci moom. tant que yegguñu foofu motivation boobu amul. mais pas-pas boobu mënu ci am. parce que nag xale bi bu jàppee ni xam-xamu jàngalekat bii de bu ma ci jotee dinaa ci defaru defar ci sama adduna defar ci sama famille mais daf koy jaral wante tey nañ ko wax rek pour la vérité amoon na jamono yoo xam ne jigéen góoni woon yàlla na nga jur mbër. journée bi yëpp day yendoo di jooy. waaw loolu dëgg la. oui <laughs> oui oui du caagen ma ma ma xeeb mbër yi déedéet ci jamono la woon. waaw jamono la woon. boo waxoon loolu. day yendu di jooy ba ngoon. waaw wante tey mun nga dugg dans un lycée. wala école bu mën a doon. jàngalekat bi mën na fa nekk ci gën a xarañ mhm. mbër bu rombee moom kenn déglootu ko mbër bi la ñuy seetaan <laughs> gis nga jamono yooyu jamono boobu la ñu créé tey jamono ji yàqu na kon yàqu na mais jamono bu yàqu la suñu <laughs> moo tax nag moo tax mhm. ku nekk na fàttaliku ni gis nga sa sa njaboot bul nangu kenn nekk sa sa éducateur yow d' abord xoolal jamono bi fu mu toll. nga xool quelle est ta part de responsabilité par rapport à ta famille. Mm, voilà dafay am solo. parce que nag violence d' ailleurs bu ñu gis ci biti ñëpp di wax. te ñi ci gën a li ci gën a ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon jàpp ay référence muy politiciens yi ñoom ñoo gën a yàqu. ñoom mm-hmm. ñëpp nag laa wax. Mm-hmm. muy opposition <laughs> comme pouvoir. dynamique bi Sénégal nekk dynamique u violence ah. kenn indiwu ko Sénégal lu dul politiciens yi. Mm-hmm. toute tendance confondue. te pourtant ñooñu ñooñu wax ni ñoom ñoo bëgg a yore suñu réew. ñooñu ñoo yore suñu réew actuellement donc. Yo, moo tax ñu ma jàpp ni. Mhm. il faut que en tout cas ñu dellu ci ay valeur en tout cas Touba moom bàyyil nañu lépp. bàyyil nañu lépp mhm. mhm. ku ci mais <laughs> ku aussi. dem ci leneen dem ci ndabal borom te ku dem ci ndabal borom xam fi ngay c'est ça merci. loolu moom euh, vraiment amuñ ci benn merci vraiment ça mais maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon Saourou Sène di enseignant. très bien euh, bokk it nekk it syndicaliste ci wàllu jàng. Mm-hmm. donc dafa amoon solo trop mu dugg ci wàllu euh, pàcc bi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, ci lañ tolloon di maanaam xale yi bu ñu demee tey bay xokkatal seen i professeur génn di jooy naan <laughs> ñu dem nañu ba di ñu xokkatal bëgg ñoo rey dafa xaw doy waar donc yaakaar naa ni. xaw wax na ko yow wax nga ko Saourou wax na ko xale moom na nga topp ci ki lay jox xam-xam. Mm-hmm. nu mu mënti toll ak sa bàyyi doy bu mënti yow na nga topp ci ki lay jàngal déglu ko mhm. yaakaar naa loolu mooy li am solo kon li nga xam ne ni na ku nekk si ñun donc dernier ñu wax lépp li nga xam ne moo ñu gën euh, amal njariñ mhm. mooy li mu wax ci ci ci ci politiciens yi ñu mhm. bari bari ñoo ko yàq waaw loolu c'est la réalité euh, lu dëgg la lu wér la lu am la waaye kon ñun ci suñu bopp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci politique ñoo war a xool suñu bopp xool nan la ñuy comporté comportement yooyu nag mi ngi tàmbalee ci école boobu ñu wax mooy xale yi nañ leen di former ci lan mooy respect. Euh, nit ki ki nga jàkkaar lool ban cër nga ko war a jox. c'est euh, boo ko defee rek. Mm-hmm. Euh, comme li mu wax léegi nii bu ñu génn gisee ñu génne ci daara yi. Mm-hmm. loo leen mën a waxal. Mm-hmm. am na am na am na lu lu ñu am. lu lu lu ñeneen ñi amul. te ñun ñëpp ñoo bokk. fu ñu jóg dégg ñoom ñu sànni déedéet du ñu ko def parce que. dafa am lu ñu leen di jëkk a jàngal. nga xam ne moo war ci nit ki moy lula yàlla jox rek loolu mooy si wërsëg loolu buñ ci yeme rek mu am jàmm kon maa ngi lay bu baax. merci jërëjëf di di la sant. di ñaan émission bi mu am barke. amiin euh, ba nga xam ni. dana doon ci émission yi gën a mag ci réew merci jërëjëf di la ko ñaanal di ko ñaanal. jërëjëf merci di leen gërëm kontaan lool merci jërëjëf vraiment jërëjëf sa euh, mhm. alors euh, Hadj Kandé sa kàddu gu mujj. waaw Oudé kontaan naa trop vraiment dañu am un invité qui a été mhm. à la hauteur. à la hauteur vraiment C'est vraiment analyse mi vraiment yu pertinent la. Hein. Mhm. et tu sens que vraiment li muy wax vraiment il le dit en tant que patriote en tant que sénégalais. c'est ça parce que tamit lui Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañu Sénégal moo ñu ñor euh, di la sant la gërëm euh, ci ñetti pont yi nga xamante ne wax nañ ko fi mhm. parce que commencé nañ ko ci euh, mbirum tournée politique euh, bu bu njiitu réew mi tournée politique ah, économique la wax de voilà donc léegi présidentielle dañ lay mere de ñom économique la wax waxuñu politique <laughs> mais de toute façon c'est vrai que débat bi amna ci côté bobu li ñu ci mëna japp moy mooy mhm. président de la république buñ ko fané falé c'est pour justement mu répondre n'est-ce pas aux mhm. au véritable préoccupation des des des Sénégalais lool moo tax ñu fal président de la république légui nak il faut pas que ñi politique politicienne ñu koy dugal ci ci gestion donc euh, donc suñu suñu suñu suñu état yi. donc lu ko luñ loolu lañ mën a ci premier point deuxième point bi par rapport à la réaction de Ousmane Sonko may li ñu wax rek. Euh, violence mom kenn bëgguko ko. Mhm. violence euh, kenn bëgguko Ousmane Sonko xeyna so soo gisee mu wax ko c'est parce que il a été poussé à bout responsable la leader la te xamna na gënum ko bëgg Sénégal on il faut il faut il faut aussi qu'on se le dise quoi xam nga ñun ñëpp Sénégal moo ñu tax mais violence mom té aussi ñu xol naka la ñuy réguler un peu les forces de l'ordre et de sécurité Daniel euh, il faut pas qu'on utilise une force de de l'ordre et de sécurité vraiment ci je pense que notre police est suffisamment euh, est responsable notre gendarmerie est suffisamment responsable qu'elle du le manipuler mais ce que je veux dire c'est vraiment les gens qui yi nga recruter il faudrait que la police et la gendarmerie aient un rôle mmh. parce que c'est ce moo tax ñu ñu fal c'est comme nous ñoo le droit ça mmh. exercer des scènes de violence à d'autres personnes mmh. donc euh, au Sénégalais c'est comme euh, donc à plus forte raison que nous donc maintenant sur le troisième point et ça ça fait très peur et c'est une interpellation que nga xamante ne dama koy def suñu man li une sorte de recolonisation sensibilisation bi nga xamantene Occident mu ngi koy def rek ñu ngi koy duggal ci suñu programme euh, sans euh, euh, ren rek waxoon nañu ci li nga xamantene ne moy le droit des LGBT ak yu mel non dans nos programmes ñu ko ci wax léegi ils vont nous emmener encore ce système là bo xamantene ne léegi élève bi d'autres ragalate maître moi je pense que c'est une sorte de recolonisation ñu ngi continuer sen colonisation bob ci ci Afrique sen unique objectif moy def de de de nous de de